allahuma laka alhamdu wa ilayka almushtaka wa anta almustaan wa alayka tuklaan wala hawla wala quwwata illa billahi alali alazim allahuma salli ala sayidina muhammadin salaatan takunu lana ala allahi baaban mashhuuda wa an aadaa'i xijaaban masduuda wa ala alihi wa sahbihi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yow njiitu réew mi président Macky Sall yow njiitu jaww ji Mouhamed Ibn Abdoulaye Dione yow ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye gouverneur kilifa yi fi teew yëpp présidente conseil départemental maire bi usman Sarr ak kilifa yi fi teew yëpp te fàttewuñ si sunu kos ministre d'État Ousmane Ngom nu ngi lay delloo nuyu yàlla dafa ni wa iza xayatum bi taxiyatin fa xayu bi ahsana minha aw rudduha bu ñu leen nuyoo na ngeen delloo nuyoo bu gën rafet ni ñu leen nuyoo bu ngeen ko mënul delloo leen kem nañu leen nuyoo ñun nag mënuñu delloo kem ni eh, ni nga ñu nuyoo amuñu sax kenam ba tax na mu def rek li ñu sant isa xasurat yadduka anil mukafaa falyaqul ko bi shukr mun la defalee teraanga te sa loxo njukkal jotul nee na tàllalal booyalal sa làmmiñu cant mu wutu sa ndeyjooru njukkal kon président ñu ngi lay gërëm di la sant te di la ñaanal yàlla alaaji Mambu Mamadou Kunto ñu fi jóge moom ma nga ca barzaq maa koy fekki moom duma fekki du dellu si fii recommandation yi mu mujj joxe ndax dafa wax doomam soxna astu di sama soxna ni ko Bachir de ñëwul ci CRD bi mu doon def ci Thiès mu ni ko dafa amoon ngànt mu ni ko déedéet dafa gis sama dee te xam na ni duma fekke gàmmu gi ma ñëw soxna si wax ma ko ma daal di dem ci moom mu ne maa ngi doon wax astu de ko da nga gis sama dee moo tax dem lool sa ndaje man nga déet sëñ bi mu ne ma akañ ah, gàmm gi duma ko fekk lii moom ko wax bokk yi ci mujj yoo xam ni ma Bachir maa ngi lay dénk président Macky Sall ak soxna Marème Sall te nëbbu gi nga nekkee nga bàyyi ko dama bëgg nga dimbale leen te toog ñaana leen yàlla moo ma ko wax ma nga ca barzaq kon bàyyi na la xel mu mel na njukkal la la doon jéem delloo ndax yow ak sa soxna yëg gi ngeen ko yëg ñewantal gi ngeen ko ñewantal ak liggéeyu rëy yi nga amal fii ci Ndiassane dama ni dama leen wax ni ñun kër sëriñ lañu buur bu fi nekk du ñu la contre ñun du ñu contre nguur xam nga lu tax qul illahuma malikal mulk tuutil mulka man tachaaw wa tanziul mulka min man tachaaw wa tuizzu man tachaaw wa tuzillu man tachaaw bi yaddikal xayri innaka ala kulli cheyin qadir waxu yàlla la <coughs> nee na nguur newu ci loxo kenn du ci jibril du ci ibrahima du ci muhammad du ci keneen ci loxoom la nekk ne maa kaa jox ku ma neex ku ma neex it ma folli la kon bu xëccoo jotoo ki nekk wuti sa pexe nga dem waaye dogal bi nekkul ci yow al mar'u yudabbir wallahu yuqaddir l'homme propose Dieu dispose bu yàlla dogalee nag ndogalu yàlla nangu noppalu teel nelaw te yow ci ndogalu yàlla yi nga bokk loolu danga xëccoo yàlla jox la ko kon ñun duñu contre nguur fekk terewu leen ñu julli ak woor joxe suñu farata ak suñu sunna duñu jotee yéen dara rafetal rek te yéen du ngeen ñu ko tere ndax ni ñuy joxe noonu ngeen di joxe kon li moo doon taxawaayu sëriñ bi moo wax ni kuy suñu njaboot xam na xol bi nu la ameel ak yéene bi nu la ameel ak ngërëm ak sant gi nu la yoreel suñu njaboot yépp xam nañu ko mel na bon bu nu nekkee ci jamono joo xam ni jamono baat bu gàtt la gëléem day xam boppam te foo xam ni tarxiis tax na loosum wanaat damm bu fa njamala dee jaar war def nank waaw. sëñ bi nga ne. baat bu gàtt gëléem day xam boppam. te foo xam ni tarxiis tax na baatum mbonaat dem ja njamala bu fa dee jaar def nànk te nag muroo taxul di benn dama ni li nekk ci jën kenn soxlawu ko ba sànni ko moo di lépp moo nekk ci géej te ñëpp soxla ko kon nag ñu woote politique bare na waaye ñun ràññee nanu la werante amu ci sama benn mbokk mu xam ni dafa jóge ca kaw ga nekk tayoor ca marché di ñaw di ñaw puso bi jam jam ga mu ni def na si tamajin mu ko waaj tétanos mu yóbbu ko loppitaan beneen pusoo ko faj mu di piqûre sérum antitétanique kon nuróo du benn beneen bi ci des dama bëgg góor ku nekk mu wax ko Ahmed Kountoumi ni que bu mu dee wax ñu ne wax ji bare na dama ni wax am na solo jaan dafa jëf lugukat dafa wax ba dangar wàcc xanaa foofu wax fay na fa jëf te nit a ngi ñu tëj kaso kaso ba amul bunt amul parenteer amul cellule amul rideau amul dara muy wax ba génn yàlla ñu ko nettali fa naada fi zulumaati an laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin wa lawla annahu kaana min almusabbihina la labisa fi batnihi ila yawmi yubasun waxu yàlla la yéen teel a yunus a kaso ban ko tëjoon newul ci kaw suuf ci biir géej la nekk muy kebatu di kebatu di kebatu ba génn te it wax li tax mu am solo ñaari wax a ngi yoo xam ne yooyu yem guddaay yem taxawaay yem nuroo mbubb te bokk ñu po te mooy merci ak merde bu si nekk juróomi leetar la ba tax na président ñu ràññeen du mu dof réew mi nag ku wax ñu yëkkati bu jëmale ci yow waaw ñoom am nañu droit ni ànduñu ak kii ànduñu ak kaa ñun amuñu droit ñun ak kii ak kii ñoo ànd bu dëgg mais question liberté la lan la waaye ce terrorisme la dafa war a jeex ba tax na ñun daal ñu ngi lay gërëm di la sant te di la ñaanal yàlla ñun nag jàmm lañu soxla ci réew mi moo tax ba nga yónnee ay jàmbaar ñu dem Mali sëñ Ndiassane dafa kontaan ndax ñun Mali sunu sunu genn wàllu njaboot ci ba nga Mali Tombouctou 33 cent yi ñoo fa nekk 29 yëpp suñuy maam lañu ñi ci des seeni jarbaat lañu moo tax bi terroriste yi naan du nuy toj suñu bàmmeelu maam Cheikh Sidi Yaxala leen fa fekk fekk leen fa ay ay yemba leen fa daq kon ba nga ne jàmbaar ci Mali dama ni kooku acte de courage politique la sëñ bi kontaan woon ci lool ndax lu déstabiliser Mali. déstabiliser région bi déstabiliser ñu te dundu doomu aadama dafa foor man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasadin fi l fa ka annama qatala naasa waxu yàlla la yàlla nee na doo reyee benn nit na na humanité nga rey boo dundalee benn nit mel na ne humanité yëpp nga dundal dundal kon monsieur président ñu ngi lay gërëm di la sant di bokk ak taxawaay ak gis-gis yal na yàlla yokk jàmm ci réew mi bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lii nag di dee du lu bees malaakal mawti ñëw na fi def li mu def dana fi dellu siwaat yan yéex dama ni yent yàlla Moussa ku ragaloon dee la ba ka malakal mawtu songee dafa taj bët bi teef mu daw dem ci yàlla yàlla lu mu laaj xam na ko ni ko laaj ko lu tax mu def la lii mu ni ko ragal dee rek ana njaboot gu sew Haaroona ñoo bokk ndey baay yàlla boole woon ñu yónni ca yent ca ca Firawna sa ay saay ba mu bàyyi fi njaboot gu sew bu ma dee ku leen di yore yàlla ni ko yow Moussa yow mi ma waxoon ci tuuru Sinaa yow nii yaa wax loolu fabal yet wi nga yore dóor ko ci xeer wi ci géej gi mu fab yet wi dóor ci géej gi aw xeer génn ca mu ni ko fabal yet wi dóor ci xeer wi mu fab yet wi dóor ci xeer wi xeer wi toj ñu ngi ca fekk benn sax sax boo xam ni xobu garab mën ko tiim sax ba ma sabal sabbal boroomam subhanallah subhanallah xobu garab gi lekk ndox mu say jóge moom lay naan yàlla ni ko Moussa seetal lëndee maayu xeer wonu kaste diigal ko ci biir géej waxoon naa la bu yàgg mi wa ma min daabatin fi ardi illa ala allahi risquha wa yaalamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullun fi kitabin mubin ñu woon naa la borom bakkan fu mu nekk xam naa fan la te danaa ko fa fekkee rationnel lan mooy sa yoon ci njaboot gu seegoo bàyyi gannaaw mu ne kon jot na alors métier bu nekk nag monsieur le président dafa am risque xam nga malakal mawt dee mu amee instrument la waaye moom léeg ñu dóor ko Moussa dóor na ko ñeneen dóor nañu ko waaye yent yàlla Idrissa wala yent yàlla Daouda daf ko doon jéem def corruption sentimentale dafa ni dëru ci kanamam mu ni ko yow yaay kan mu ni ko man maa ki faayewul buur yi mu ni ko aha ah. mu ni koo xam ne lu tate rëy rëy rëy fortalesse lu mu rëy rëy danaa fa dugg def li may def mu ni ko kon yow xanaa yaay malakul mawt mu ni ko waaw mu ni ko gis nga yow ni ma la buggee barki démb maa ngay waxtaan ak yow sa mbir di wax yow nangam dégg nga waaye nag bi nga laata ñëw ci man waroon nga ma ko wax mu ni ko wax naa la ko bu yàgg mu ni ko man mu ni ko ana sa maam diw mu ni ko dee na ana sa baay diw dee na ana sa xarit diw dee na ana sa mbokk diw dee na mun la boobu laa la wax ni maa ngi jëm ci yow du dëgg kon kon mel na na dee moom du fi gëj waaye daal damay jeexale rek ci fàttali loo xam ne fu dee amee ma fàttaliku mooy keroog ba ñu dencee yent yàlla Muhammad góor ñi duna ñu di jaale jigéen ñi Fatimatu bintu Muhammad ñu yéen góor ñi yéen a ngoog moo yéen ataabat anfusukum an taxsu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam turaba yéen daal yéen a am xol dem xa gas pax yoor ci rasulullah topp ngeen fab suuf di ko ko xëpp yéen a def nii Abubakar ni ko mënta ñàkk suuf yàlla nee na minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra nee na ci suuf la ñu bindee bu ñu dee ci suuf la ñu denc bu ñu dee dëkkal ci suuf la ñuy jëlee te sa baay bii yàlla seedeel ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa du wax mukk ngir bakkanam lu mu wax maa ko wax moonu wax ni annaasu min aadama wa aadama min turaab ñépp ci aadama la ñu jóge aadama suuf la moo taxit kullu lazi fawqa turaab turaab koo gis muy dukkat ci kaw suuf suuf la kon alaaji maam bu dellu na jël na wàllam sunu wàll ci des sàll ñu ngi lay gërëm di la sant ci turu njaboot gi turu Ahmed Kounta ndax moo di taawu Alaaji Mango Kunta boo waxee mu ni aw ma lu may wax sama bàyyi ngi fi man duma wax dara fab yëpp teg ci sama loxo ndax kër gi it noonu la noonu la bindee woon ki fi jóge toppe rek la xamoon ba yàlla def mu jiite njaboot gi daf dul njabootu Cheikh bu Kunta rek njabootu Cheikh bu naama premier Kunta bi ñëw fii nga xam ni mooy waajuru sunu maam Cheikh boo Kunta gane dànk gane àdduna ca ndànk njaboot Cheikh Bunaama yëpp moo nekkoon doyen ba kon moom xalifa euh, Ndiassane la xalifa ndànk ci histoire de famille bi nag ñett ñoo ko fi nekkoon bay siidi bay bu ak moom waaw ñii ñoo ko fi mas a nekk nekk xalifa ndànk nekk xalifa Ndiassane kon monsieur président gërëm nan la gërëm nan sa ministre de l' gërëm sa premier ministre bi gërëm ñi nga xam ne ñu ngi ci gox bi di la jàppale teg jiital si kenn teg ci Ousmane Sarr mii nga xam ne mooy maire bu góor góorlu sonn lool ci sëriñ bi ñu ngi gërëm ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ci gox bi te di la dimbale ci ñun ay meeru njëng suñu cousin ki nga xam ne mooy Abdou Ndéné Sall mu ngi fi ak président conseil départemental bi ñu ñëpp mbokk lañu waaye ñu ngi lay dimbale ci ñun lu mu xew la ngi ci lu mu soxla ñu ngi ci te looy def duñ koy def ci sa tur kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci sa kanam di gërëm gouverneur préfet sous-préfet monsieur président ñii daal boo leen mënul jox promotion bu nu yëkk bàyyi leen ñun waaw ndax wax dëgg yàlla ñu ngay def seen liggéey te ñaawaluñu ko ñii la représenté ci nit ñi nag bu nu bu nu yàqee rek mu ñaaw kon ñu ngi leen di gërëm ci sa kanam Ousmane Gueye ngi sunu taalibe la muy maire Saly euh, ñoom daal li ñu leen wax xam dégg nañ ko xam nañu ko. du ñuy dof dégg nu ko xam nañu ko waaw lii daal monsieur président moom laa la doon wax ci la ñaan nag di def loo xam ni crime de lèse-majesté la mooy yónni président de la république euh, maa ngi lay yóbbante ci soxna Marième Sall sëriñ bi gërëm na ko ba ni mu sàngoo suuf ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla président li nga bëgg yaa xam yal na la ko yàlla defal ñun daal ñu ngi ñaan yàlla yàlla làq la fa yàq yeggul loolu moo di am solo wasalaamaaleykum ñu ngi gërëm suñu mbokk seen si kër Cheikh Mamadou Fadal la ñu nii chérif yi ñoom ñu ngi nii ñu jóge niñ euh, Kabir ngi nii Kabir Dem Ngom mu ngi may xaritu ministre d'État la jóge kër Baye Niass Mbacké doo dolee nii ah sëñ si sëñ Haadi الله الذي لا إله إلا هو الملك القدس السلام المؤمن العين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا خرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاحا الا قضيتها يا ارحم الراحمين